Abonnez-vous Abonnez-vous sur sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça, c'est ne ngeen di am ay chaîne bi di FTTV Sénégal Qui di Ziz Mamadou Seck mi nga xam ne ci loxoom la dossier qui dit Cheikh Omar Diagne Le dossier qui dit Karim Khouroum Xaq Le dossier qui dit Hannibal Djim Le dossier qui dit Basir Diomaye Faye le dossier kii di président Ousmane Sonko nekk le dossier kii di Fadilou Keita nekk kookee nga xam ne ne day jël xeetu tuuma yi nga xam ne méngoowul ak yu am di ko teg ci ndodd ñooñee moo jëlaat ay xeetu tuuma yu yees daal di koy tegaat ci ndodd kii di Fadilou Keita juge deuxième cabinet bi di ooyee ci turu Mamadou du ginnaaw ba mu jëlee xeetu tuuma daal di koy teg ci ndodd kii di Bassirou Diomaye Faye daal di koy toppee tuuma yu ñu toppee kii di président Ousmane Sonko yëpp ci réew mi di Sénégal jëlaat na xeetu tuuma yooyu ñuy toppee kii di président Ousmane Sonko daal di koy teg ci ndodd kii di Fadilou Keita li mel na ku ci amal ab njàngat da nga gis que ne xeetu tuuma yooyu juge Mamadou Seck jëloon daal di koy teg si ndodd kii di Fadilou Keita xaajul bay dëppoog li am lu tax ñu wax li ni mel mooy que ne kii di Fadilou Keita ñoo ngi ko jàppee woon ci benn publication bu mu amaloon Facebook te ci publication boobee mu sampoon laaj di laaj ndax frère di Dj Badji ndax kookee reyuñ ko li mel mo taxoon ñu japp ki di fadilu Keita té si lolé ki di Sizane Camara dem na ci ben télévision de la place dal di wax que ne kii di Didier Badji ak Fulbert Samb dañ leena ray té te kenn convoqué wu ko kenn tëju ko kaso donc lu ñu jàppee di fadilu kayta sax jàppin bi du dëgg du yoon ndax ki di Sizane Camara mom da wax que né dañoo ray ñoñé te ki di fadilu kayta mom da sample laaj rek ñu jël ko dal di koy tecc ci kasso bi ñu déta way juge Mamadou Seck di site deuxième cabinet daldi jël xeetu tuuma yi ñu toppee woon kii di président Ousmane Sonko daldi ko teg ci ndodd kii di Fadilou Keita li ni mel moom ñëpp xam nañ que ne du dëgg du yoon ndax ci luñ toppee kii di président Ousmane Sonko bokk na si luñ wax mooy que ne kii di président Ousmane Sonko day financé ay terroristes waaye tamit dafa rey ay nit ci lum leen oo ñu wàcc ci tëli bi waaye tamit dafa bokk ci ay organisation terroriste léegi toppee di président Ousmane Sonko te dara du ci dëgg lépp ay sos la lañ jël daal di koy teg ci ndodd kii di Fadilou Keita mi nga xam ne ne moom bañ koy jàpp police lu mu defoon du lenn lu dul bind benn poste léegi ku bind benn poste di laajte ndax dañoo rey fereeram waa wala déet kookee lañ toppaatee ne day day financé ay terroriste kooku leen toppee ne dafa rey ay nit waaye tamit kookee leen topp ko ne dafa bokk ci ay mouvement terroriste te loolee ñëpp xam nañ ko ne xeetu tuuma yooyu ñu ko nama toppee ci lim ak lim def xaajuñ bay méngoo donc juge bii di Mamadou Seck ñëpp xam nañ ko ne état bi la Sénégal, nekkal ñooñu lay liggéeyal charge yu muy jël di ko ci ndodd wa Pastef du lenn lu dut ab parparloo ci réew mi di Sénégal. abonnez-vous ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes sa su ngeen diam am ay xibaar.